ñi nga mm. prêter le flanc mais quand même prêter le flanc parce que droit dans l'exercice de ses fonctions bañ a euh, ay droit donc ci liñ c'est pas la première fois lu mel di parce que soo seetloo ba ci c'était la même chose donc euh, nañu bàyyi dal yoon def liggéeyam te pour cette fois mu jaayante te baña a te impartial parce que setlu nañ ni en tout cas euh, ñi exercer loolu mm. nonu di droit mm. te diko wëyel ci dëkk bi ñom dañoo far far googu moo tax ñuy wëyalee luwaawu waaw waaw moo tax ñuy wëyalee luwaawu kumba am ndey hmm. ak kumba amul ndey ndax ñoom ñooñu ci seeni ñooñ bëri na loo xam ne ñu ngi koy def te ba tey euh, yoon tegu leen loxo alors en tout cas di ko ñaawlu bu baax euh, te di solidariser bu baax ak euh, ñoom ñooñu groupe de presse Walf ak Pape Ndiaye moom ci jëm bopp effectivement alors si révélation yi nga xam ne itam def na ko yoon ak wàllu yoon ne ko substitut yi sax matuñu li nga xam ne moo di 19 mu daal di wax li nga xam ne moo di au nom de 19 exactement donc est-ce que peut-être foofu Pape Ndiaye xawul juum par rapport ak ak xam ne information mm. position mm. Mm. révélation et que droit dans l'exercice de ses fonctions mu en tout cas dévoiler ay droit parce que yoon may ko ci exercer donc euh, gisuma ñu war alors justement il euh, y six chefs d'inculpation mhm. alors euh, euh, si li nous a dit est-ce que jàpp na ni chef d'inculpation exactement non Je ne hmm. parce que les sénégalais ils xam nañ ko ñoo sommes ñom seen jëm bop xam nañ ko hmm. mais dañuy xol nan lañ koy gëna mëna bayé fa mu nekk xam nañ ni su fekkon ben chef d'inculpation la peut-être dina gaaw a génn ñaar paré ñett hmm. paré hmm. mais dañuy xol nu ñuy gën chargé dossier bi kon li ni yëpp pour chargé dossier bi la mais je rappelle tout le temps que du mom rek lañ ko fi njëkk def parce que ba ci Hannibal jëm dañoo charger dossier woon nit dof dañoo charger dossier woon ñi fa nekk ñëpp ba ci maman Amidia ñu ngi ci weeru jigen dañoo chargé dossier woon donc yag nañu ci lolu yag nañuy doxale non. mais c'est justement pour mëna gëna bàyyi nit ki ci gannaaw kaso yi pour mën a exercer ñoom lu ñu bëgg def ci réew mi

boobu li nga xam nekk moo Blanche doon fa def ay chronique yu am solo ay chronique li nga xam que modi judiciaire jëm ci walu wunu mel donc il a été déféré tay ji nak avocat moo ñu ko daal di li nga xam que modi di ginaaw ginnaaw ba nga ko tégué loxol tegee li nga xam que modi aljuma mu nekkoon li nga xam nekk moo euh garde à vue mu di nekk ko daal di li nga xam que modi di jàllale nag justement alors de plus en plus aussi yolaan la liberté de la presse fi nga xam nekk zone Sénégal mu nekk li nga xam tam peut-être yegguñu ci à cent li nga xam que modi mo moo jëm ci nga xam que modi ay sondage Sénégal da si deltu ginaaw

peut-être buñ ko doon jëmele ci ñun euh, hmm. nous problème amul wala hmm. alerter en tout cas l'opinion internationale mais ba ñi nga journalistes yi ba def c'est tout à fait normal que mu mais tamit ñu opinion internationale hmm. parce que normalement journalistes yi relayer les informations pas créer les informations mais dem nañ ba maison de presse en tout cas dañ

dëkk bi day tàkk ligne éditoriale. ligne mais ligne éditoriale am. Hmm. relayer la réalité mais lu ngay créer information. créer information amul da ngay relayer l'information am ay maison de presse yu vraiment gisuñu ni relayer l'information mais dañuy créer information dañuy fabriquer information te du mais comprendre mais ci kaw loolu bu ñu fàtte ni ñoom am na leen tënk muy éthique et déontologie te dañ koo war a wëyee. alors justement ma ni kon am solo bu baax donc de tout cas avec ki nga xam que modi di Pape Ndiaye euh, mu daal di gaaw génn fu mu nekk daal di delluwaat li si justement alors euh, yola ñu si ëpp na nee na bi li nga xam ne moo la exactement parce que yeen tout le temps yeen une wolf Wolf, leen gën a gis de plus en plus euh, à travers li nga xam ne ces divers émissions exactement alors Wolf, Wolf, Wolf, Wolf, est-ce que tamit wolf tamit jamono ji nekkul li nga xam ne moo menace ci nguur président Macky Sall même su nekkee menace ci nguur gi hmm. wolf mësut hmm. a changé en tout cas ligne de conduite hmm. franchement mësul a changé ligne de conduite en 2012 nous hmm. ñoo fini nekkoon man sañ naa ni Macky Sall Walf bokk na ci parce que moi, moo def promotion Quand kon as eu a dem ba toog ci nguur gi ñëpp japp ni au moins pour cette fois nit nous dinañ mëna exprimer librement mu bëgg leen xoxatal té hmm. ñëpp xam nañ ni dañuy hmm. xoxatal wa wolf ñun lutax ñu ñëmé dem moy ñom ñoom parce que dañuy naan doxin waa Walf dañoo jël trop position ci opposition bi mais jëluñu position ñom ñoo né ñom ñoy baatu askan wi té askan bi saa yu ñu ko soxlawee en tout cas ñom dañuy taxaw. Hmm. ñun wal fa saa ñu soxlawee couverture ci ñom hmm. wallahi dañuy ñew hmm. te nit ku nekk nak wax dëgg yalla sañ nga bés bo woté journaliste yi wuyu si la. waaye da ngay wo yenen maison de presse duñu ñew donc c'est tout à fait normal que Wolf di wuyu si ci appelu la population parce que nee mom mo fi nekkal la population de la plupart du temps li ñuy relayer moy réalité bi en tout cas tout le temps mooy réalité bi donc amuñu droit xoxatal len tout simplement parce que ñu ngi accueillir en tout cas la population dañ leena wara war ak sen ligne de conduite hmm. dañ leena wara war ñu wéyalee sen digël sen sen liggéey parce que bo ba légui ñu ko tek ci yoon ba ci kérok biñ koy tëj amuñu droit tëj ko parce que wolf fabriqué wul information dafa doon relayer li am parce que Amna ay période yo xamné ne ñoo ni c'est incitation à la violence amul incitation à la violence ils ont montré exactement li xew ci deuk bi hmm. donc loolu du incitation à la violence hmm. waxuñu kenn ñew leen hmm. ngeen wacc ci terrain bi amul mais dañoo relayer li am donc loolu incitation à la violence ñom dañuy def jeu de mots di jël ay mots di ko teg ci ay faits foog ni nit ñi wéruñu wala comprendre ñu ñun xam nañ li fi ne dañoo relayer information kon nañu bàyyi acharnement boobu noonu ñuy def ci journalistes yi et surtout ciblage bi ñuy def ci benn maison de presse boobu noonu di Walfadjri. alors Yorane soo leen desandi ba tey si wàllu yoon ak wàllu yoonal gis neen fi képp ki nga xam ne tam peut-être jàpp neen la euh, difficile na pour ñoom exactement pour ñu wax la raison bi euh, bi si jiitu li nga xam ne moo di Hannibal Djim exactement euh, difficile na sax pour ñu daal lay déglu par rapport ak ak li nga xam ne tam moom la ñu daal toppee lu nu mel naka naka daal di jàngatee fii si Sénégal exactement wala kon peut-être dañuy xool pour euh, nous la en a tafalee chef d'inculpation chasse aux activistes là hmm. chasse aux porteurs de voix hmm. et chasse aux en tout cas je dirais combattants de la vérité hmm. parce que ñi ñu fi jàpp de ay nitu dëgg lañ ñi fi jàpp ñëpp amul kenn ku ci wax naka sudul loolu au contraire dañ doon sensibiliser la population te ñoom suñu sañoon dañuy gëlëmal askan bi hmm. suñu sañoon kenn dootul waxat yi suñu sañoon ñoom dañuy nekk ci seen i malversation sans pour autant am kenn ku ku sañ baaraam en tout cas li ñu nekk di def moo tax dañ lay jàpp ba noppi ndax man duma taay ci di ko wax kidnapping la kidnapping la dañuy dañ lay jàpp ba noppi doog a lijjante lan lañ la war a mën a toppee mm-hmm. te commencé wul ci ñoom kese mm-hmm. def nañ ko ñeneen ak ñeneen ku ci mel ni professeur Cheikh Omar Diagne mm-hmm. def nañ ko Karim Gueye dañ ko fekk muy ndekki ñu jàpp ko yóbbu ko ba noppi yéeg ci kaw di xooli vidéo yi pour xool lan lañ ko war a mën a jàppee te ñëpp xam nañ ni loolu recul démocratique la ñëpp di ko ñaawlu mais day mel ni ñu ngi koy gën a wëyalee en tout cas ñoom fileeg ñu ñun duñu bàyyi fileeg bàyyiwuñu ñun duñu tàyyi Euh, ndéem ñëpp ak ñuy déglu ñu bari bok ñu ngi ñuy déglu dinañ essayer en tout cas jàllale information yi té sensibiliser la population pour ñu mëna xam exactement lan moitié xew ci réew mi. alors justement si euh damay ñëw exactement si li nga xam ne que moo di euh, si wàllum Tunisie ambassade la nga xam ne itam yóbbu woon ko fa jëm si nga xam que lettre de contestation euh, lu ñu mel ñu dal leen tek loxo yow Guy Marius Sagna ak seen ay yenen 18 non je pense bien. Mhm. alors tout d'abord abord exactement si lan mo waral yëf yi lan moo waral ngeen jël am initiative dem déposer li nga xam nekk moo di lettre euh, fa nga xam tam itam si diwaanu ambassade Tunisie euh, jëm si euh, président bobu di Saïd li nga xam tam non la nekkee fa nga xam ne mo moo ci dëkk bu mel ak li nga xamné nekk nit yu ñi. xam nga tout le monde est témoin de hmm. xoqatal gi ñi xoqatal les africains hmm. noirs. Hmm. je précise les africains noirs fofu lé ci Tunisie parce que ñoom tunisiens yi ñi ci ëpp bok duma généraliser dañu japp ni peut-être ñom duñu ay africains. Hmm. parce que so xolé ba ci seeni communiqué dañuy wax les africains. Hmm. pour indexer ñi nga xamné ne français lañ am. ñepp gis nañu. xoqatal malgré ñu ngi Afrique. Hmm. ñepp gis nañu xoqatal giñ ñu di xoqatal moy lu ñaaw. ñu tok ñun les membres de la société civile sétane nguur gi mais ba tay binduloon communiqué defutoon dara en tout cas pour soutenir ñi nga xamné ñom ñoy ñooy seeni citoyens naturellement nous mel frappe frappe. di leen remercier Walé bu baax. tout d'abord abord dagguma la donc taxawaay Aïssata par rapport à Bobo di mbir da nga jàpp ni euh, taxul. exactement dimanche dimanche le doog a communiqué dimanche fait nañu jàpp ñu une noppi dimanche ci goudi, le hmm. de communiquer hmm. maa ngi koy suivre bu hmm, baax. waxu ci dara tout au début waxu ci dara les membres de la société civile particulièrement waa FRAPP ñu ne dañuy déposer lettre d'information pour mën a def sitting. ci buntu. Euh, ambassade Tunisie au Sénégal. Hmm. bu ko déposé ñu bañal leen ko. bi leen ko bañalee ñoom ñu ne mënuñu def sitting accepté hmm. nañu décision préfet bi pour cette fois. Hmm. mais dinañ bind ay ay ay ay lettre en tout cas yo xam lettre de protestation lay doon ñu déposé jiko ambassade Tunisie pour wax leen ni. xoxatal gi ngeen di xoxatal. suñuy nit fofu nonu la ci Tunisie neexuñu lettre de protestation ci kaw lolu yenen membre yenen organisation ñu décidé top leen ci lolu ku ci melni ni Africa First ku ci melni SNP ak ñeneeni organisation yo xam and nañu ak ñom pour déposer ay lettre de protestation mais est-ce que dépositoire bi amone autorisation. léegi pour déposer bi. Hmm. dañoo ça saa yu amé attroupement waruñu euh, da nga wara déjà déposer autorisation. Hmm. ñu ne léegi jarul attroupement di am. Hmm. ku ci nek na demal bopam kenn andu ta kenn ku ci nek na demal bopam déposer ji lettre.

ku ñëw ñu ne la jox ma sa carte d'identité ñu téye na la xaaral. Hmm. noonu lañ ko defee ba mbooloo bi mat ñu gaare seen oto ne leen dugg leen xam nga lan lañ leen wax newuñu leen sax dugg leen ñu jàpp leen mais dugg leen ñu yóbbu leen fi ngeen di déposer man bokkuma woon ci ñooñu bi ma gisee ñu jàpp samay élément dama ne ki ma àndal ma ne ko nañ demee ba ministère des finances ñu gaaree noonu xool parce que lii wóoratul. Hmm. bi ñu gaaree noonu di xool. ñu gis euh, Guy Marius Sagna di mm. def déclaration. Mm. ñu ngi jàkkaarloog moom mu def déclaration ba noppi mm. di dem. bi muy dem sax man benn moment wàcc naa oto bi topp ko. après ma ne lii woowul tam ñu jàpp ma te après du am kuy relayer l'information ma dellu si waat ci oto bi toog dama jékki-jékki dégg bruit wu lacrymogène man sax tir d'arme laa ko tegoon bum bum bum ba muy ñetti yoon. naturellement da ngay tiit jug dem ma jug bi may dem ne ki ma àndaloon ne ko jugal ñu dem fayal oto bi ñu dem. mu tëj oto bi ñu dem xam nga man su ma xamoon ni dañ may jàpp duma yóbbaale sama téléphone man mosuñu maa jàpp ak sama téléphone mais bi may dem jàpp ma woon ni lii nécessité na jàpp dama dégg bruit ma tiit ma dem ñu dem ba ci yoon bi ndeysaan hmm. <laughs> gis ni ñoom la ñu gazé ci la ñuy doog a xam ni lacrymogène la waaw bi ñu gënee avancé ma seen commissaire Khady Fall di ñëw hmm. vers man ak ñeneen hmm. bi ma leen gisee ma commencé dellu ginnaaw man ak ki ma àndal ma ne ko nañ dem gaaw nañ dem nañ dem balaa ñuy jàpp bi ñuy dem ñoom ñu waaxu si ba suñu niveau nañu topp leen ma ne ko lan laa def lu tax ma lay topp mu ne topp leen. yéen ñëpp yéen 18 personnes yi. non non. ñooñu jàpp nañ leen. ba noppi man ak ki ma àndaloon mooy ki doon dawal. donc yow bokk na si ñu mujjee jàpp. man la ñu mujjee jàpp. man ak ki ma àndaloon bon. du man la mujjee jàpp mais bokk naa ci ñu mujjee jàpp parce que bi ñu yóbboo commissariat ba noppi xam parce que doone yolaan ak Guy Marius Sagna xam ne si gën a fës mm. yéen ñaar dëgg la euh, mais moom Guy Marius Sagna moom Guy Marius Sagna dañ ko jàpp moom ak Gérard ba noppi mu taxaw waa mm. Aliou Gérard Koyta ñu mm. taxaw buntu ambassade man ñu ma jàppee biñ may naan topp ñu ma top lépp ci la rejoindre gui Marius Sagna bi ma ko rejoindre ci lañu tek auto oto nañu yéeg leen bi ñu sax d'ailleurs ci la profitoon dem sama téléphone mi ngi won ak ma ma photo wu am ñu mako yone ne leen tas leen ko japp nañu ci lañ demee euh, centrale lañ ñu yóbbu directement biñu démé fofu tamit fekk ni ndeke japp nañ ñeneen té ñeneen ñooñu fofu lañ leen yobbu hmm. ñu toogaat ay 15 minutes am ñeneen ñu ñew ku ci mel ni Moriba ak ñeneen hmm. ay passant ñoo xamné ne wax dëgg yàlla ñun sax xamuñu leen

mais ils insistaient sur le fait en masse. Hmm. ma même ñi nga ne en masse xamna ci dara parce que dama waccé élément bima malen waccé par benn hmm. benn lañ dem pour déposer ji ñu jël carte après dougal len ci en masse am kon trouble à l'ordre public amul kenn ku taxaw ci trouble à l'ordre public wala ngay ngay manifester di hmm. par exemple suñuy suñuy mbokk diw ak diw ak diw ñu dund lu metti wala diw mais kenn waxul

man dama ne nguur gi cuune gi ñu cuune moo tax ñu fayir ci loolu parce que sitting bi en principe. Hmm. su fekkoon muusoon nañu waruñu ko interdire. parce que du moment que ñoom jëluñu seeni responsabilité hmm. war nañu au moins làqatu ci ginnaawu euh, société civile bi ngir ne au moins ñoom xaw nañu def dara mais defuñu effort ci loolu ñu wëlbatikuwaat ñu ne dañuy déposer li lettre de protestation ñu jàpp ñu te ñoom ñoo waroon a encourager loolu day mel ni kon dañoo dañoo cautionné li nga hmm. xam ne moom la état tunisien di teg suñuy confrères ñoom dañ ko cautionné ñu dem ba foog ni au moins après lool dinañ wax ku mel ni Aïssata Tall Sall génn ne amul benn sénégalais bu ñu xoqatal hmm. te ñun bi ñuy jàpp am na kenn ki nga xam ne dafa nekkoon étudiant tunisien étudiant Tunisie étudiant sénégalais la moom bokkoon na tamit moom en tout cas moo nekkoon euh, président de l'association xaw ma dee xaw ma lan subsaharien mm. bi ñuy waxtaan dafa ne ba nii sénégalais yi suñu xëyee seen groupe whatsapp ku ci nekk day doon ne signe de vie pour wane ni kidnappé wuñ la pour wane ni dooruñu la mm. pour wane ni yóbbu wuñ la mm. loolu c'est grave yow ay satataal sàll nga génn ne ñoom dara dalu leen ñu ngi ci jàmm mosuma satisfaire te ñëpp ñëpp ñaawlu nañ ko c'était pas le moment mooy à la dernière minute la ko génne ci koo xam ne moom la ñu dénk loolu mu wëlbatiku waat ne ñoom ñu lu metti mm-hmm. nan la mën a waxee loolu nan la mën a waxee loolu en tout cas kilifa du ko def ñaawlu nañ ko bu baax a baax mais du ñu teggi suñu tànk ci combat bi. doo leen teggi seen tànk qui sera la prochaine étape exactement ginnaaw ba ngeen déposé seen lu nu mel euh, Aïssata Sall wax na fii peut-être les choses persistent lan moo wax daal doon dernière étape bi. Euh, xam nga déjà lépp suñ ko waxee déjà dañuy njëkk faagaagal ci lu ñu war def. mais je combat yéen a mën si kanam. bien sûr parce que lii mënuñu ko seetaan. Faut que bi jël ay responsabilité woom hmm. waa Tunisie t'es combat bi yaakaar naa ni waa FAB commencé nañ ko avec le boycott di ko rafetlu bu baax avec le boycott parce que yow fu ñu la fonkulee fu ñu la yëgulee fu ñu la lijjantewulee yow it amal fulaay bañ leen a donc boycott boobu di ci woo ñëpp ba ci jadida bi suscité ay ay ay polémique na ñëpp boycotté produits tunisiens. yi te tamit ñu am fulla ci suñu bopp mais euh, le fait que nit ñi di dem ba Tunisie di fa jànge du ma ne seen ñàkk jom la waaye c'est parce que xoqatal nañu suñu dëkk ba gis nañ ni peut-être génn dëkk bi mooy solution. te loolu loonu yëpp ci nguur gi la amee. Euh, dañuy ñëw si ki xam ne moo Guy Marius Sagna sànq tudd na ko exactement moom itam mu daal di porter plainte jëm si commissariat